man Pape Diop laa tudd. Assane sama rakk la ñoo bokk ndey baay. waaw metti na bett nañu trop. waaw tiis bu ñu bett la mais dañuy delloo lépp ci loxo yàlla sant yàlla te xam ni lii moom moo ko sañee def bu nekkoon keneen la tamit dina demee neneen mais sant yàlla bu baax. Hmm. ñëpp a si jàpp wax dëgg fa yàlla ndax boobu ba autorité yi ñu ngi dugg ak génn am di jàmm yi tamit dëkkandoo yi tamit kenn demuñu des ñoom ñëpp ngi dugg ak génn. moom la parce que boo xoolee même kadday bi ñu moom mooy sonn regroupement lépp moom moo koy def. ban beneen essence sax mën naa kan dafa am loo xam ne ko war a bàyyi dirigeant mais lépp yaa ko bëgg a lijjanti mais du demee noonu mais lépp xër gi mu xëroon ci équipe am la rek sport moom da koo mës a bëgg waaw ci lay dund chaque jour même man mi tamit chaque jour ci laay nekk mais xëy na yàlla moo ko namee woon nii rek mais dañuy sant yàlla baax a baax